secteur informel bi mom près de 99 90% en tout cas ci ay importation Chine lay jóge kon buñu ñu ba ak ci situation bo xamné dem Chine déjà mënu la né lolu problème la lolu problème la té problème la bo xamné ne mënut a affecté li nga xam moy économie réew mi manque marchandise dana am mais pour le moment comme dafa fekk ni amna ay stock yu nekkoon sur place am ay marchandises yu nekkoon en cours xam nga yooyu day fi mën a nekk ba léegi moo tax duñ ko sentir gun à 100 pour cent vers la fin du mois de mars jàpp mois avril moom début mois avril dinañ commencé gis effet yi te loolu li koy li muy li muy manifesté woo mooy euh, une situation de pénurie généralisée dina am sur le marché ci en tout cas tous les types de marchandises yi nga xamante ni bii pratiquement doon na jóge Chine dana manqué loolu moom c'est inévitable maintenant alternative bi am na yeneen réew yoo xam ne peut-être ñoom touché guñu par épidémie bi dëgg dëgg dëgg possibilité de amener pour dem ravitailler mais est-ce que dina compenser dina compenser gap par rapport à li nga nous avons moo ça je pense pas mais on fait avec parce que c'est une catastrophe naturelle On ne peut considérer comme telle